الرجيم كركن جم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله waaw tey ñoo daje woon fii ci mujamau Cheikh Ahmadul Xadim li tarbiyati wa takwin ngir ginnaaw bu sëriñ Mouhamadul Muntaqa xafisahullahu taala war a ubbee dalal ñëpp tey nag ñi jàng majalis muy njàngum xam cosaan mi ñoo doon daje di tàmbali njàng ñu indi woon nag alxaaji Mbàkke Jaxate nga xam ne mooy jàngale fee ci jumaa ji Daarul Maarif al Islaamiya euh, mu war a ñëw tàmbalil gone yi bind bi njëkk war a tàmbali jàng ñu barkeeloo ko ndax si jumaa ja la nekk mën na juróom-benn at dafa jàngale xam ñu bari ci ñi fi ne fii tey day dongaam wala ñuy dongay dongaam ñëw nak ànd ak sëriñ Ahmad Badawi mi nga xam ne moo jiite daara ji di mu jamoo Cheikh Ahmadul Xadim majalis doon benn bànqaas ci yooyu di jàngale xam-xame lislaam yi nga xam ne euh, mooy cosaana yi waaye di ko jàngale ci làkku arab muy daara joo xam ne mën nañu wax ne bu lislaam duggee Sénégal tasaaroo fi njàngum majalis moomu la mooy njàng mi lislaam njëkk xam bi mu tasaaroo ginnaaw na yaatu yi tax ñu ubbi ay école yu mag ñu ñëw fekk si ko ànd ak moom ñu jàngale di yare waaye bii nag mooy bi fi jiitu mën nañu wax ne mag ñi ñu xamoon fi ñëpp ci réew mi ñu yor ngànk diine ji tasaare ko it ci daara yi lañ génne moo tax sëriñ bëgg ñu sàmm ko euh, téye ko waaye nag yeesal ko yeesal ko mooy lañ baaxoo woon a jàng lépp ngir nit ñi dégg diine dégg it làkk wi nga xam ne moo ëmb diine muy làkk arab lañ ko fi jàng waaye yeneen xam-xam yi nga xam ne it adduna koo soxla lislaam soxla ko lislam lislaam woo ko it danañ ko ci boole xay na li ne woon ci daara cosaan yooyu daan ci ay manqué manqué ci yoo xam ne it lu jëm ci nu ñuy natte gone gi ak ni ñuy toppi njàng mi ak fu mu toll ñu wutal ko fa ay këyit wuy saxal ne toll na fii loolu lépp nag ñu mottale ko ci mën nañoo wax ne daal majalis loolu la ëmbut njàngum diine la mu xóot moo xam ne ki fi génne li ñu yaakaar ci moom daal mooy lépp lu ay ci xam-xam yi diine dana ko mën a pegg waaye xam-xam yi nga xam ne dana ko mën a dimbali ci àdduna ngir mën a dund ci mbooloo mën a amal njëriñ nit ñi it amal njëriñ diineem xam-xam yooyu it danañ ko ci boole incha allahu taala waaye daal baasum njàng mi ak liggéey bi xam-xamu diini la ci làkku arab mi incha allahu taala gaaw lay bu soobee yàlla gaaw bu àll ba la jàng neuf heures ci suba lay tàmbali ba une heure trente xanaa bis bu set xale yi danañ jàng ñeenti dars ñeenti bind njàng moomu nag mooy wéy ci at mi xëy na ren ji mu demee nii waaye ni baaxu amee dëgg-dëgg octobre lay tàmbali incha allah ba fukki weer lañuy ñuy jàng ci at mu ren nag xam nga daara ji waxtu yu la ubbi kon ci lañuy ñuy tàmbali jàng njàng la moo xam ne bis juróomi bis yi la ñuy jàng ci si niñ ko xamee fii gaaw tàmbali ba waaw dañuy xëy jàng bu une xanaa dénk leen ci lii Serigne As Jaxate doon wax. ñu xam ne jàng moom xam-xam sëriñ bi daa wax ne bu leen woo lu dul ak njub yéen ñiy gëstu yéen ñi jàng yéen ndaw ñi seen yitte nay jenn mooy gëstu moom mooy ak njub njub nag boo ko bëggee da ngay jàng te li mokkal li ngay jàng te fi ngay jàng yi nga di ko bàyyi xel environnement te loolu dégg nañ léegi si xam ba dañuy leeral majaali saxaaw mooy environnement bu baaxut léegi nekkatul a barab waaye écran la léegi ni ñi war ko bàyyi xel loolu ñu bàyyi ko xel xale yi moo tax fii xale yi jàng si yëpp dañuy wax ne dañ leen di tere ñu yor ab téléphone am na fi kilifa yoo xam ne ñoo yor liggéey bi ku soxla euh, jokkook sa doom moom ngay jokkool ku fi dikk dañ la jox numéro yoo xam ne ñoom kilifa yi yor liggéey bi dañ la jox numéro yoo xam ne ku ku soxla sa doom boo jokk moom da ci am lu leer waaye daal euh, bëgguñ kenn di fi indi téléphone ndax dana sàmm jàng mi waaw diir bi jàng lépp moom